awsu billahi mi seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim ñu sant yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mouhamed sant suñu ñaari waajur sant suñu wàccale Seexul Xaddim di leen nuyu baax di leen ziyaar di leen baalu ak yéen ñi nga xam ne saa su ne danoo baaxoo di leen jàkkaarloo yéen ci àlul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ji di nuyu nag di ziyaara sunu xalifa sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiru yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wér di cëram ci noona ak ca laay ziyaare sëñ Seex Jëmb faal di ñaan suñu borom mit Fall yàlla yàggal ko fi tam ànd koog ñun donga yi di ñaanal mboolem kilifa diine goo xam ne yaa ngi fii ci département bi ñu ngi nuyu bu baax di leen ziyaara te leen baalu àq. ah ñu demoon nag bis bu am solo ñu ne ci tamit nag at moo xam ne mu am solo ñu génn at mais ñu génn ku ne gis la ca di ñaan suñu borom yàlla ñu yàlla tàqaleeg la ca xew. ñu dugg ci nag at mu bees di atum jullit tey jii nag di juróom benn fan ci weeru tamxarit tombeek nag fukki fan ak juróom ci weeru tubaab weeru mois de août mois de août bu duggee ni ko ci ni ñuy waxee lépp day ute waaye yàlla suñ borom nag saa su ne ci mbaaxam ak ci ci yërmandeem ci la ñuy defalal ay ñaan ñuy sàkk saa su rek ñaani yi yàlla may ñu at mi nga xam ne ci leen dugg dàq fuuf man jóge mel ni moom moom bu ci am. yàlla tàqale ñoo mbas mi tàqale ñoo jafe-jafe yi wérad yi ci génn àddinaat suñ borom xare leen àjjana ñi ñi fi nekk yàlla bàyyi ñu fi ñu gudd fan lool te gunge njaboot gi tey nag suñu jotaay yi ni amoon ci waajal tamxarit ñaan di fekk kenn ci suñuy xarit suñu kilifa nekk suñu lépp nekk fii ci Daaru Manaan ñu ngi fii ci kër sëñ Tuubaa gi ci Daaru Manaan ñu naan ko kër sëñ Fàllu ci daara ji nga xam ne mi ngi ci biir mu nekk ci bokk ci ñi ma naan Serigne Touba daa bari ay jàmbaar yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bu sell bi ah, di liggéey ah, doon ay Pastef te waroon na mën a yëngu ci leen bàyyi lépp jël seen lépp jox ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul te Serigne Touba mooy moom léppam yàlla la ndax ah, dama naan Cheikh Ahmadou Bamba lu yàlla yonent bi ñoru ko kon ndaw mi ci dëkk bi bu ñu ñëpp bu ñu dëgmalee yoonu Serigne Touba woowu koy sant yàlla bu baax di ci sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul di ci sant suñuy waaju ñu ne nàmpatal ci yoon wi ba mën a egsi fii ñu bàyyi sama gan nag euh, mu nuyoo présenté wu ci kaddu gi ñu ànd ceeg soxna jaara saasu ne ci caméraman ba sama cadreur bi Sané ci régie ba sëriñ Bassirou ak sëñ Cheikh Samb salaamaaleykum sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu baax di la ziare alhamdulilahi allasi sarrafana bi hasa sahri almubaraka tasrifa wa arrafana bima fihi min alxayrati walbarakati taarifa wa kallafana bima fihi min altaati walxayrati taklifa wa daafa lana fihi min alxasanati wal ahmal alsaaliati tadifa wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabi ajmain wa radi an sayxina wa wasilatina ila rabbina ahmada xaadimi rasul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdatam min lisaani yafqahu qawli waaleyk waaleyki salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soxna jaara ñu ngi lay nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak di ñu seetaan di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi saahibul fadila cheikh sayidil muntaqa di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla dëgëral ko te yàggal ko te yàlla dimbale ko itam ci naal yi nga xam ne naal naalal na ko cheikhul xadim yàlla dimbale ko ba mu matale ko ci ni ko bëggee ba sémb yeneen yeneen i naal yal na borom bi def ko di nuyu itam mboolem staff bi nga xam ne moom moom moom ñoom nga àndal te di la jiital ci nuyoo bi suñu nuyoo ñu ngi koy teg ci sa ngir nga ko ci ñoom di nuyu mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi yëpp. Mm-hmm. bisimilah. Uh, sëñ Cheikh ñu delluwaat di la ziare bu baax di ñaan suñ borom mi suñu kàddu yàlla fekk ci jàmm ñu mm-hmm. commencé ko bisimilah rahmaani rahiim eggalee ko alhamdulilah ñu jub toog tam xarit. Mm-hmm. nekk loo xam ne suñ borom moo ko digle naam wala aadala la joo xam ne dafa yàgg ci ñun ñun Sénégal nag lu dikk ñu rax ca lu ca bokkul ndax tam xarit naka la ko suñ borom diglee ñu war ko ne defee ak lan moo waral tam xarit alhamdulilah soxna jaara laaj bi am na solo lool waaye ñi ngi jiital ci euh, tontu bi ñoo ngi euh, maanaam tatagal tey ndokkeel mbokk yëpp ci dugg gi nga xam ne dugg nañ ko ci ndorteel at mi euh, kon li muy tegtale dugg ci ndorteel at mooy jeexal nañu at kon li jullit bi war a njëkk def mooy xam ni am na lu wàññi ko ci ak dundam la war a njëkk a reconnaître mooy koo xam ni dafa am lim bi mu fa a def lim ba ne yëg ni at mi ñu génn moom mbokk na ci li ci ci ci ci ci li manqué léegi euh, mu war a dugg nag ci at mu bees kon li war a njëkk def mooy seet ba xam ndax at mi weesu maanaam lam ca waroon a def ci la ko yàlla digal ndax def na ko ak la yàlla doon tere ndax moytu na ko su ko dee su fekkee doon na ko def la ko yàlla digal mu continuer ci la ko yàlla doon digal su fekke am na ay raq-raq yu ci am mu fas yéene koo réparé te daw dellu ci boromam ndax lan maanaam at mu manqué ci dund lan lay tegtale mooy jaam bi jege gum jege ak jógeem fi loolu lay tegtale laaj bi am na solo tamxarit waaw alhamdulilahi rabbil alamin maanaam bis la boo xam ni bu islam reconnaître la euh, ndax bëri na loo xam ni yàlla xewal na ko ci mm, ci weeru muharram bu ñu ci bisu fukkeel ba ci ñu koy tuddee fukki fan itam xarit arab yi di ko woowee euh, loola bis bu l'islam reconnaître la bis la boo xam ni itam am na yu bëree bëri yoo xam ne islam bëgg na ku ko ca def waaye nag ci kama araf naa ni nga xam ne noonu la aada tënkee doomu aadama yi ba nga xam ni léegi nit ñi au kon ñu di dund diine waaye aada la ñuy dund loola dafa dafa dem ba yóbbu ñu ci ba yóbbu ñu ci ba yóbbu ci maanaam euh, nit ñi gën a topp aada ci diine loolu moom mooy laa xilaafa fii mooy li wér su ko defee nag bis la boo xam ni nit ñi war nañ cee xam lu baree bare baree baree nit ki itam war na caa xam ni ay jëfam maanaam euh, danañ ko gaaral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu jëf ci at mi yëpp ndax bépp bisu alxamis ak bisu altine nit ki li mu jëf ci diggante boobu danañ ko gaaral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom mi ngi supervisé moom xam na mhm. waaye yonent bi ku bokk ci xeetam rek ci bis yooyu ak buñ demee ba at mi jeex li nga jëf lépp danañ ko gaaral kon jullit bi li mu war a njëkk def mooy mu xam mu jéem bokk ci ñi nga xam ni suñ wonee seen i suñ wonee yonent bi ay jëfam yonent bi teg ca sa waaye mu wara a bañ a bokk ci ñi nga xam ni maanaam buñ gaaralee yonent bi ay jëfam yonent bi maanaam du ci mën a teg bëtam ndax euh, euh, doy waar goo xam doy na ko waar jullit bi war naa fexe ba bokk ci ba bokk ci ñooñ su ko dee bis la boo xam ne nag njëkk kenn di ko tànn yàlla moo ko tànnal boppam muy bisu tamxarit boobu nga nga nga nga nga tudd ndax maanaam euh, bari na yu ci yu ci yu ci yu ci xew asuura na jaara suñ la waxee ne la yàlla borom bi subhaanahu wa taala cila la maanaam bind aras ak kursi kon bis bi rëy na de mhm. euh, bisu tamxarit suñ la waxee na la allawhu wal qalam maanaam lawhul mahfuus ak xalima gu suñ borom di bindee mhm. maanaam ci bis boobu la ko defar bisu tamxarit soxna jaara mooy bis bi nga xam ni itam yonent yàlla aadama ba mu amee jafe-jafe ci digganteem ak boroomam mhm. ci bis boobu la tasewaat ak boroomam ba jégal ko ba yàlla jégal ko ci bis tamxarit la ko jégal mooy lal quran di wax ni fa talaqa adam min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu tawaabu rahim loolu nag daf ñu yóbbu ci ñu dugg ci histoire bi ndax yonent yàlla adam damay wax ni yonent yàlla adam mooy ki nga xam ne yàlla daf ko bind rek defal ko taraanga te jëfalagul yàlla dara mooy yàlla daf koo bind rek dal di koy jël dal di koy dugale aljanna tàmbali ko defal taraanga mooy eh, mooy li alquran di wax naan wa is qulna lil malaikati isjudu wala sax am na bu gën a jege booba mooy wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna boo bay gën wa kulaa minhaa raqadan haysu shi'tumaa wa laa taqrabaa haadihi shajarata fa takuunaa mina zzaalimiin yàlla dafa bind aadama soxna jaara dafa bind aadama ne ko du yow aadama nun yàlla maanaam dëkk dëkkaloo nañ la ci aljanna yow ak sa soxna waaye nag lu lu nekk ci biir aljanna rek xéewal la goo xam ni jox naa la ko loo neex rek jëfandikool waaye nag ba des garab gii wala taqraba haasi sajarata mhm. bu laal garab gii su ma ko laalee fa takuuna mina zaalimiin soo ko laalee rek da nga bokk ci ñi dox diggante yàlla ak aadama jaamam boobu <coughs> jaamam boobu mooy lal quran di wax naan fa azallahuma saytaanu anha fa axrajahuma mimma kaana fii mhm. yàlla dogal maanaam saytaan yi ñëw tarxiis loo leen laal leen garab laaloo leen garab ga danaa la jox exemple ci naka la leen ko saytaane laalloo dafa mel ni maanaam saytaan yi dafa ñëw fekk aadama ci biir aljanna mhm. te ña nga amee problème ca ba yàlla waxee ne usjudu li aadam sujootal leen aadam mhm. mu lànk sujjoot am di kii ah kii du saa waaja mu ne ah ah kon fii la la suñ borom indi mu ne waaw lu mu la wax mu ne ko loo fi gis rek maa ko moom ba yàlla diglee maanaam ñu sujootal ma nga lànk sujoot hmm. bañ ma sujootalee ba noppi fii la ma yàlla indi bi ma indi itam taranga ji la ma defal taranga ju njëkk ja mooy usjudu li aadam hmm. taranga yi ñaar ji mooy uskun anta wa zawjukal janna maanaam yàgg sa soxna dëkk leen fii hmm. taranga joo fi gis rek man la yàlla jox xanaa gisoo fi mu neexe fii ni mu neexe waaye la ma wax ne ma bul laal garab ne ko mooyee ne la bul laal garab gi lu ma laal mu ne ko mas nga gis mu lekk mu ne ko déet yàlla du lekk mas nga koo gis mu naan mu ne déedéet mu ne ko garab gi lay dunde boo gisee mu yilif ñëpp mu yilif ñëpp mooy maanaam waaw ci ci mu yilif ñëpp mooy garab gi lay dunde maanaam nag ku lekk ci garab gi rek doon kilif hmm. dootu la yilif doomu aadama ak pouvoir gi mu bëgg pouvoir ah, ak bëgg gi mu bëgg daraja mu daal di wëlbatiku nag daal di song garab <laughs> léegi nag loolu alquran nan fa asalahuma saytaanu anha fa azamu tarxiis loo lahuma ñeel leen ñoom ñaar muy aadama ak soxna sa hmm. mooy ci ñu laal garab ga kan moo leen tarxiloo a saytaanu saytaan waaye nag bañ ko defee rek yàlla def yàlla maanaam def na ma indi sanction mooy fa fa axrajahuma mimmaa kaanuu fi mooy mu génne leen ci xéewal gam leen dugaloon xéewal googu nag ba mu leen ca génnee wax leen ñu ñu wàcc ci kaw suuf euh, euh, uhbituu minhaa jamii'an fa immaa ya'tiyannakum minnii hudan faman tabi'a hudaaya falaa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun loolu alquran wax ne leen wàcc leen ci kaw suuf léegi nag maanaam kon léegi toroxtaange dugg na ndaxte lii ndi toroxtaange mooy mooy ndigalal yàlla borom bi subhaanahu wa taala ba toroxtaa nga je dikkee nag ñu tasaaroo ñoom ñaar nekkatuñ ci benn barab nekkatuñ ensemble at yu bari mm-hmm. bisu tamxarit ci la yàlla dogal ñu am xéewalu tasewaat ñoom ñaar tase ci kanamu seen borom jéggalu yàlla yàlla ci bisu tamxarit la leen jégal kon bis bi bis bi bés bu suñ borom tànn la mm-hmm. eh, soxna jaara bisu tamxarit itam gaalug yonent yàlla noox ga nga dégg nga doon dégg gaal googe itam ci guddi tamxarit ci la teer mm-hmm. ca ca maanaam ndox moom mi nga xam ne suñu borom wàcce woon na ko doon muy bàyyi ko ci suuf di bàyyi ko ci kaw asamaan mhm. mm, soxna jaara bi su tam xarit itam maanaam ci la yenent yàlla Muusa labaloon Firawna noonu yàlla bu rëy boobu noonu mhm. mooy ba Firawna féttërloo rek maanaam daal di xëy xëy rek dal di def ay projet de loi yu bees mhm. te dinaa la wax dara tey maanaam bépp chef d'état boo gis ci àdduna mu dem ba mu yàgg muy def ay modification de de de de loi di def ay nag xamal ni pouvoir am mooy def loolu mais ku sa pouvoir joxul loi yi nga fi fekkoon tam nekk loi yoo ci lañ déggoo ci ngay continue mhm. boo demee bay def ay modification de loi rek sa parce que mooy yëgatoo sa pouvoir jeexal nga am yaa ngi bëgg a dem loolu mooy mooy mooy tegtal loolu lan la Firawna def Firawna dafa yor nguuram ba xamtukat yi maanaam ñi a xam ni ñoom ñoo ñoo ñooy ñooy par exemple tey jii suma ko doon tudd ci tuddee ci jamono jii su ma leen doon wutal tur mhm. mooy damay wax ni mooy gisaanekat yi mhm. ak maanaam pettaaw kat yi ak xamtukat yi ak seetkat yi ya nga xam ni ca mbooloom lañ bokkoon ñoo dajee def seeni i mbir def seen i xam daal di génn ne ko yow day ki la war a doon ci at mi lay judd sa ngóor jeexan firaw na ci xel mu rëy ma mun ne man jigéen du ma kon góor la mën a doon kon lenn rek laa mën a def mooy damay defar loi boo xam ni maanaam bépp eh, doom bu fi judooti di góor rek nañ ko rey bu judooti jigéen ñu bàyyi ko mu dund. Mhm. su ko defee bu loolu amee rek ki ma danañ danañ dem ba danañ tombé ak ki nga xam ne moom waroon a pouvoir am yem foofa maanaam moom du du du du du du mën a agsi mhm. euh, yàlla dogal nag mu daal di wëlbatiku nag di def noona li yusabbihuna abnaakum la alquran wax wa yastaayuna nisaakum mhm. dañ doon rey seen doom yu góor ya mhm. di bàyyi jigéen ña ñuy dund bañ defee noona nag di def noona di def noona ba yàlla dogal yonent yàlla Muusa juddu yonent yàlla Muusa nag moom yàlla ku mu namm ci yow mbir moo tax moo tax gis nga yu ñuy sonn nii nag ak maanaam di fexeel koo koo xam ne da ngaa jàpp ni maanaam moo war a war a jeexal moo war a moo a jël nguur gi ci yow kenn puutoon pexe Firawna te ba yàlla nammee Moussa toog gisees bi rek yàlla da ko cee dëj mm-hmm. Firawna keroog eh, eh, Moussa keroog bi mu juddoo yaayam daf ko jël def ko ci benn kees ngir bañ ñu rey ko ñu mm-hmm. ko def ko ci kees bi daal koy teg ci kaw ci kaw ndox mi xam nga kees boo ko tegee ci ndox du diij ah. muy fii ci kaw ci kaw ci kaw ndox mi ba yàlla dogal maanaam Firawna génn di doxantu ànd ak jabar ji ki mu gën a bëgg ci jabar ji moom la àndal ñuy doxantu bu yàgg ñu seen benn kees garde corps yi dafa mel ni lee kees la de ñu ne kees la mu ne seet leen lu ne kees ñu dem ab liir ñu ko ab moo ci nekk de mu xool leen a ci rendi leen ñu daal di indi dañ ko biñ ko ko wonee naka naka la soxna si xool yont yàlla Moussa rek ci ñàkk gi mu nekk liir am ci moom coxeel goo xam ni mhm. maanaam ñu ray ko moom dara jëralu ko te na itam ndaw si rek lay déglu mooy ku yàlla na la rëccal mooy ku yàlla na la rëccal mhm. mu daal di wëlbatiku ne ko nag ah waaye yow ñun sëy nañ at yu bari amuñu doom ma ak yow xale bi dama ko bëgg dama ko may ma def ko sama doom mm-hmm. mu ne ko ah xanaa déggoo li yi wax mu ne ko loolu du problème yow daal fexeel ba may ma ma def ko muy sama doom ah mu bàyyi ko mu bàyyi ko xale bi waaye daf koo bàyyi bu noppi bàyyi ko rek bàyyee ko ko de daf koo bàyyi bu noppi di ko superviser mooy léeg-léeg gis koo xam ne pouvoir am dafa jeex mm-hmm. maanaam kam jàpp ni maanaam mooy jeexal nguuram fu mu toll mi ngi koy bàyyi may bët ak di ko topp ak di ko fu mu dugg fu mu génn mu di ko topp uh-huh. da gis maanaam ñi nga xam ne yore nañ nguur ci àdduna ñu di ko def mm-hmm. waaye ba ba yàlla dogalee na def loola bokk na ca test yam doon defal Moussa am na bis boo xam ni mm-hmm. yonent yàlla Moussa ci biir kër Firawna la yoroo de ci biir pale bi la yoroo mm-hmm. seetal loolu rek ci biir pale la yoroo am na bis boo xam ne dafa teg benn dogitu or moom Firawna teg benn benn xal daal di fàttu si yonent yàlla Moussa fekk mu toll ci ram mu joxoñ ko or bi xal wi or bi mi naaj wi mi ngi ci tampi mi ngi leer xat xal wi itam mi ngi booy mi ngi xonk cooy xam nga dafa xal bu booyee dafay rafet mm-hmm. <coughs> mu fàttu si wan wan ko bi mu ko ko joxoñee mu ram wuti mu ne tey xam ndax maanaam liñ koy jiiñ ndax man ku ma war a doon du nekk innocent maanaam ki ma war a doon xel mu rey la war yor li muy doon doon xale bu fekke moom war a doon rek fi lay bàyyi xal wi jël jël or bi yàlla dogal maanaam Moussa raam ba jub or bi na ko waxee woon bi mu ne jëyi loxoom di bëgg a jël or bi rek am na ci borom xam-xam yi wax ni maanaam yàlla mooy yónni malayka mu fel loxoom waaye ala kulli xaal daal jëlut or ba mhm. ak lu mën a xew ca wax ja dafa daal di jël xalwa mu lakk ko ci loxoom mu seex ko mu lakk lamiñ bi mu ne kii innocent la xamul dara loolu moo indi woon yonent yàlla Muusa ci dundam làmmiñ wi fecciku dafa lakkoon ca ba muy xale boo gisee mu doon wax naan eh, yalla ba muy dem ci ba mu ko nee demal nag attaqué Firawna mhm. mu doon wax naan rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxalul xoqodatam min lisaani xam nga lu ko indi mhm. mooy feccal sama làmmiñ mooy làmmiñ yi dafa lakkoon ca ba muy xale yafqahu qawli ba su ma waxee rek ñu dégg li ma mhm. loolu moo indi tam maanaam mu waxoon ni boole maag sama rak Haarun may ko daraja yenent moom moo ma gën a set làmmiñ su waxee danañ ko déglu loolu moo waxoon moo taxoon yonent yàlla Moussa mission am dafa dafa àndoon ak mbokkam mission bi kooku itam mooy ki xam ne borom làmmiñ wu fecc ko yi yàlla dogal ba mu demee ba nga xam ne nag woona Firawna ca la ko yàlla digal Firawna jàmmaarloo ak moom ca nam la woon ak moom dafa gudd ba mu jàmmaarloo moom ba Moussa xam ne Firawna ko ëpp doole fekk boobu yàlla def def loo na Moussa xalwatu ba suñ borom dogal mu jox ko ay secret bokkoon na ci ko joxoon benn yat boo xamante ki nii moom a tàmbalee di jaaxale Firawna mooy bi bi ñu waxee ni Moussa borom kéemtaan la a def mooy xam ne ñu amoon xam-xam mm-hmm. wax ne leen ne leen jommal leen ko ci xam yi ngeen xam mu xam ni xamul dara mm-hmm. bokk na ca def bokk na ca lañ def mooy kenn ku ne la nga yoroon ci sa loxo danga koo sànni ci suuf jaan di batu di dem ñu loolu Moussa jël yat bi mu yoroon bàyyi ko mu dal ci suuf rek mu nekk jaan jaanam joojee wan na mboolem jaan ya nga xam ne ñoo fa nekkoon Firawna xam ne commencé na am problème mhm. mu commencé kereel Moussa ba yàlla dogalee maanaam muy dàq yonent yàlla Moussa ak mhm. ci buntu géej gi ci gi mhm. ñu gis ci seen ginnaaw gis Firawna mi ngi leen topp mu amee ak armée bi euh, amul fu mu jaar maanaam gek na ci ci géej gi tam xam ne maanaam amul fu mu jaar te mënut a dëpp di dajeeg Firawna ci la ko boromam wax yu ne ko Moussa jëlal yat wi nga dóor ko ci géej moo tax moo ta ba mu dóoree yat wi ci géej gi géej gi daal di xar def aw yoon woo xam ne ca la yonent yàlla Moussa jaar mook ñooñam ba jéggi. mooy ki wax ah. ci moom laa jëm si moom laa jëm si. ba yàlla dogalee maanaam mu mu mu mu mu def aw yoon mu jaar ca ba jéggi. Uh-huh. Firawna daal di ñëw daal di song yoon wa ba mu demee ba àgg ci digg bël ba ba nga xam ne mi ngi ci digg géej gi. Uh-huh. yonent yàlla ne yonent yàlla Moussa léegi rocc leer bi jëlaatal sa yat bi mu rocc leer rek Firawna daal di ba ba moom moom mbooloo moom àndaloon ak ba nga xam ni moom la moom la moom la àndaloon. Mhm. te te dinaa la wax soxna Jaara <clears throat> gis nga bi bi yonent yàlla kii ni nga xam ne eh, Firawna noonu yàlla boobu bi muy suux mhm. xanaa xamoon dem na bay tuubal yàlla. Hmm. dem ah dem na ba xam ni maanaam eh, eh, yëf yi na ko. Mhm. dem na bay tuubal yàlla moo tax tuub dafa am foo xam ne bu faagee dañuy toj buntu tuub. ndax alxuraan dafay wax ni alxuraan mi ngi koy nett di wax ni. wa jaawasnaa bi bani israila al bahr fa atbaahum firawnu wa junuduhu bagiyan wa adwan nee na ñun dey ñoo dimbale waa banu israil ña nga xam ne ñoo gëmoon Moussa maanaam ñu xuus ca géej ga ba génn Firawna nag topp leen ak maanaam ah, xare ba nga xam ne ñoom la àndal wala armée bu mu àndal ñaar la boole ñaari mbir moo nekk ci moom bam bam ba muy topp yonent yàlla Moussa ak nit mooy baxiyan wa adwan mooy mbañeel ak noonu moom la defoon Moussa waaye nag ba mu nee bu Moussa jël yar wa nag lab ma dop dab ko mooy ata isa adrakul xaraq qaala amantu annahu la ilaha illa illa allati amantu bihi ba demee ba lap ma dab ko nag ke la wax ni ne man dey gëm naa yàlla ji nga xam ni moom la Moussa gëm ak waa këram daal di tuubal yàlla waaw daan ne wa ana minal muslimin léegi ci nit ñu baax ñu bokk yàlla ne ko wala xanaa tey nga ci bokk mhm. wa qad asayta qablu bu njëkk ci mooy ma nga nekkoon wa kunta minal mufsidin nga bokk ci wa yàqkat yi mhm. xamal ni maanaam tey jii maanaam du ma la jégal yent yàlla mu ke eh, Firawna dafa lab an ak mbooloo ma ca ca ndox ma yalla daal di seppi ca firawna nag ca ñoom maanaam nga xam ni ba mu faatoo itam yaram wa yàquwul nëbul deful dara loolu alquran dettali na ko alquran dafa wax ne fal yawma nunajjika bi badanika na mhm. am na yeneen siècle yu war a ñëw ci àdduna su ñëwee buñ gisee man torox tàng ji ma la teg mi nga xam ne yaa nekkoon sama noonu nekk noonu yonent yàlla Moussa dana nekk kéemtaan ci ñoom ba danañ moytu loola mhm. waaye la yàlla wax ca aaya ja mooy wa inna kasiran min ayatina maanaam bëri na bëri na kéemtaan gu ma def sax gu bokkut ak googu waaye nag doomu aadama dafa sàggan maanaam taxul mu mu taxul taxul mu yow moo tax kookuy wax ci fan yi naan danaa xar géej gi danaa ko def nangami morso danaa waaw tur bi nga ne naka la kunkaane du ngeen ci mas teg seen bët du mas a am ci àdduna kenn du gis mu xar géej gi man maa la ko wax man mm-hmm. xamalu tax mooy moom xar géej gi mi ngi ko teg ci ak njabar ak taal ay cuuraay ci buntu géej géeg di fab ay yat di joxoñ géej géeg te yàlla dafa man sax yi ma ci jot a gis yàlla da koo nattu ci maanaam bu bu àggee ci fab jaar wi di joxoñ géej géej yooyu sax géej gi sax du yëngu ci jamono yooyu maanaam géej gi xam nga géej sax baaxoo di duusu waaye man yi ma ci jot a gis yëpp maanaam bu ma gisee muy joxoñ yat wi naan danaa ko xar maanam ci jamono jooju géej gi day dal dafay def teg du ngeen masa a ah, suuraay soreetul doon wax du 17 heures la wax ah, wala walaay danañ àgg ci euh, dix neuf heures wala wala wala vingt heures te du ngeen ko du sotti xam nga lu tax xam nga lu tax du sotti ah. mooy ci njabar la ko teg te njabar daa am fu mu yem ah, gis nga gis nga yonent yàlla Muusaa ba muy xar géej gi maanaam boobu dafa fekk mu yor kàddug yàlla nekk ci ndigalal suñ borom subhaanahu wa taala mm-hmm. nag def loo ko ko mu def moom nag duut ku yàlla yi def loo di ko dindiloo yàlla def loo wut kunkaane yàlla dindiloo wut kunkaane mm-hmm. loolu mooy moo tax bu jàppee ni ci pexe yi boppam wala ay ci xamtu yi boppam wala ak njabar man naa tax mu xar géej gi comme ni mu ko waxee ñëpp di ci teg seen bët wallahi tallahi Sénégal duñu ci teg seen bët mhm. du am mukk ci àdduna loolu mhm. kon euh, ci gàttal mhm. maanaam yii ma la limal na ci ci tamxarit la xew maanaam noonu la yàlla tànne bis bi def ci jëf yii mu ci def waaw mu nekk bis bu màgg boo xam ni euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw madinatul munawwar ci benn hadis nu nu niñ ko nettalee bi mu ñëwee dafa fekk yahud yi di woor maanaam asura bisu tamxar ñu di ko woor yonent bi laaj ne lan ngeen ci jublu ñu ne ko bis bii mooy bis bi nga xam ne ci la yàlla dimbale woon Muusa ak waa banu Israil ci pexam Firawna loolu moo tax ñun ñuy woor bis bi ngir màggal ko mhm. yonent bi wax leen ne leen nun gënuloo ne gënu leen ñoo yey ci Muusa wala yonent bi wax leen ne leen nun noo leen gën a yey ci Muusa mhm. kon daal man dana woor fukkeel bi comme yéen su delli suyee nag danaa boole juróom-ñeent ba ak fukkeel ba woor ko wuuteeg yéen man danaa woor ñaari bisi yi mhm. yàlla dogal nag at may laata dellu si bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna kon yent bi musta woor maanaam bisu juróom-ñeenteel bi waaye woor na fukkeel bi mhm. ah, ah, ah, te bu dellu si waatoon fekk ko fi itam dafay boole juróom-ñeent ak fukk woor ko mhm. kon loolee jullit ñi war nañoo bàyyi xel ci loolu mu nekk ni jullit ñi war nañ cee di di woor <clears throat> ngir ngir roy yonent bi sallallahu alayhi eh, eh, wa sallam eh, mu nekk bis boo xam ne itam comme ni nga ko laajee comme ni ko laajee bëri na yuñ ciy def yoo xamante ni bokk ci mm. waaye bokk na ci li ñuy jiital mooy liñ ci war a def mooy maanaam bokk na ca lañ ca war a def mooy fexe ba dafa gis a njaboot taraanga loola baax na ca lool ndax bis la bu mag boo xam ni bu mag la ci doomu adama yi kon doomu aadama yi war nañ koo magal mm. mu nekk bis boo xam ni itam <clears throat> Euh, euh, euh, la ca jiitu ci lañ ca war a def mhm. mooy maanaam ndax man toxale naa ci mbindum sëñ Tuubaa mhm. muy nettali ci ne gaa yu baax yi de saxaloon nañ di jëf fukk ak ñaar yoo xam ne lu ca nekk maanaam lu baax la mhm. ba ca njëkk mooy woor comme ni ko defoon moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ca topp mu di def ci bu ñàggee ci maanaam yor yooru yor yooru fukkeel ba mooy ñeent rakkaa yu ñu ciy julli la ca topp mooy silla mooy jokk ak bokk baax na ca lool ci def ko la ca toftalu mooy sangu ci itam baax na lool lu ca nekk sëñ bi wax na la muy jariñ saraxe ca baax na lool maanaam lelli ci say wex baax na lool maanaam euh, euh, maanaam li ñuy wax tusngalu itam baax na ci lool jàng ci suratul ixlaas yi maanaam junni baax na ca lool maanaam fexe ba jox njaboot gi itam ñu lekk maanaam taral leen ca baax na ca lool yi daal fukk ñaar la yoo xam ni maanaam euh, Cheikh Bamba bind na ci mbindam ni gaa yu baax ya saxal nañ ni maanaam yii moom def ko ca baax na laal tàmbale na sax doon lim di wax naan sangu ca dafay jëñ ràgg tusngalu ca day tax maanaam doo gumba jox si sa njaboot ñu lekk dafay yokk wërsëg lool bokk na ci yem lim nii baax na ci yii nag defe naa su fekkee jiw ma xam naa yaa may gën a comprendre yëf yi defe naa yii ma lim nii uh-huh. maanaam nit ñi nañ ko li ñu weesu nañ ko te te te sëñ dafa mel ni nit ñi cere ji daal mm-hmm. euh, dafa dem ba nga xam ne euh, sama saane mii nga xam ne cere rek bëgg mm-hmm. xam nga soose yi bëgg cere mm-hmm. euh, dem na ba nga xam ne moom cere ji moom daa mel ni far force la Sénégal ndax ñun nin koy màggale ñun Sénégal def ko far force ndax noonu la ko mag ñi doon defee ndax noonu la war a amee tamit. ñun ñi nga xam ne biñ juddoo yàggut ak ci jamono yi ñu nekk sax. daanañ fekk mag ñi di ci defar cere maanaam reer. waaye la tax itam ñu daan ko defar nekkul ni maanaam cere da caa gën. xam nga léegi rek plat yi ñuy togg ci guddi yi maanaam di ko def di ko xewloo ci guddi yi maanaam la ca gënoon a siiw fii ci réew mi mooy cere ñu mujj judd sax xam nañ ni kenn ku ne ci ñun ñii sunuy way jur maanaam palaa bañ tànnoon seen waa kër di ko xewloo par guddi mooy cere loola moo indi moo ñu yóbbu ci buñ àggee ca ca bis booba ñu defar cere ba noppi nag wëlbatiku maanaam soppi soppi defin wa maanaam man def ci waa mi ngi noonu fexe bam bam bam neex a jëfandikoo mhm. waaw fexe bam neex a jëfandikoo mhm. fii nag cere cere nag nga ah, xam naa sama xam-xam cere waaye xam naa gis naa eh, maanaam cere ji na ma xamee woon na ma xamee woon ñu naan ko defee ah. defee cere yi tam nag dafa mel ni loola moom soppiku na léegi cere ji lu ne la def ci cere yi eh, léegi dangay gis ku bàyyi ko ci tam xarit da ngay am problème bu biir da ngay am feebaru biir lan moo ko waral mm-hmm. mooy lépp loo xam ni produit la boo xamante ni ki nii maanaam xëy na maanaam méngoo wut ak cere wala boo xëy na man xaw ma ko ca woon mm-hmm. léegi danañ ko ci def mm-hmm. léegi nag jigéen ñi ñoom xam nga wala ci lenn ci soxna yi xëy na dañoo xéer a xéer ba maanaam buñ buñ buñ defee lañ def da yëpp moo ta da ngay gis bu ñu rombee tam xarit rek ñaari fan yi ci topp rek da gis nit ñi dañu am problème mu biir ah, la ko waral la ko la te kat mboole lekk maanaam lekk yi gën cere ci la bokk cere la bokk am na sax ñuy wax ni Cheikh Abdoul Fadal waxoon na ni maanaam cere buñ ko booleeg ndox biir bu mu fanaan jàmm rek cay xew ah, waaye nag léegi cere duñ ko booleeg ndox ah, dañ koy booleeg ay ay ay ay ay ay ay lu ne lu ne daal lu koy boole bu njëkk donga daara yi lan daan naan ñoo ko daan def waaye léegi daa mel nangu nañ ko ci ñoom. li gën a li gën xam ne léegi moo gën a doy waar te gën a ñàkk a dëppoog njàngalem yonent bi ci li ñuy def ci bés boobu rajo ba li gën a ñàkk a dëppoog njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. gën a doy waar ci bisu asura mooy taaja bon rawatina Sénégal lan moo tax soxna Jaara mhm. mooy taal taaja bon xëy na sax am na ñu ko daan def te rafet nañu ko daan def loolu am na waaye léegi folklore lañ ko def mm-hmm. mooy tëgg fecci mm-hmm. góor ñi sol yére yi jigéen mm-hmm. jigéen ñi sol yére yi góor te soxna jaara wallaahi alxasim dañ bàyyi xel ni nit dafa lépp lu muy dugg war naa xam lan la ko ca diineem sant ak lu mu ko ca santul yonent bi sallallahu dafa waxoon ni góor goo xam ni dafay nuru nuru lu jigéen ak jigéen joo xam ni dafay nuru nuru lu góor waxuma la dem aljanna waaye xet ga du ko xeeñ nga gis nag mbokk yi dañuy sol jigéen ñi dañuy sol yëre yu góor mhm. euh, jigéen ñi euh, góor ñi sol yëre yu jigéen mhm. am na sax ci goor ñoo xam ne dañuy àgg ba ci dañuy puudaru mhm. ak suur yi yi nga xam jigéen ñi dañ koy def ci seen seen kanam yi ñu rëdd rëdd rëdd ba tawarkàlla macha allah nga xam ne suñuy yëkkatiwut seen kaddu duñ doo xam ni kaddu gi rek moo lay xam moo lay xamal ni kii moom moo lay xamal ni kii kat góor la waaye su waxagut maanaam da ngay daal di jàpp ni kii kii kii ñu daal di nag wëlbatiku góor ñaak jigéen ñi ànd jaar ci mbedd yi yuuxaloo yeeg Eh, eh, eh, jaxasoo ba nga xam ne lislaam santu leen koog yéen cey def yëpp kenn ko nag gis na réew mi ni muy doxee ci wàll woowu nag loola mooy la ñuy def ci la ñuy def ci xaar tam xarit la ca gën a ñàkk dëppoog ndigalul suñu borom mooy tàjjabon loolu itam ci aaday la bokk du du du lu islam santaane ay jël cere ji après loolu loolu na bëri am problème moo ko indi <laughs> bëri na ko say bët di métti looloo koy indi. <laughs> kon daal kon kon daal xam nga déet yow lu lu yomba justifié la xam nga lu tax. Uh-huh. <coughs> xam nga lu tax uh-huh. mooy cere ji cere ji. Uh-huh. dafay am kaani. dafay am cere ci boppam. Mm-hmm. dafay am poobar dafay am yu saf yu bëri am vinaigre am am am am mm-hmm. nga boole koog maanaam ak diw gi. Mm-hmm. nga boole ko dugal ko ci say bët. sëñ bi loolu loolu sëñ bëri nañu fi seen bët di am problème ginnaaw tam xarit looloo ko indi voilà mi ngi noonu këpp itam daanaa gis nga xamante ni nit ñi dañu jël bool bi tiim jal ab jal lekk ba waa lekk ba noppi bool bi nga xam ne moom lañ doon lekkee maanaam ñu wëlbatiku bool bi lu ma tax war maa la ndax ci nga defoon xéewal gi nga doon xéewaloo day mujj maanaam bool bi dafay taq suuf ba nga xam ne suuf si lañ la ñuy mujj def ci bool bi jël maanaam desu reer beeg eh, dugub ji nga xam ne lañu war a war maa la ñu jël ca ca cere ja maanaam jal dank ko teg ci kaw suuf mm-hmm. loolu baaxut mm-hmm. jël bool bi nag ne ñaan seen borom yàlla ku koy ñaan du foofa mooy barabu ñaanukaay ñi xam ñaan te te yàlla dimbale leen ñuy ñaan am na diggante yu leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ne barab yooyu ci la ñuy nangoo ñaan waaye du ci barab bu ñu reere ba noppi maanaam di këpp bool kërëng kërëng kërëng amaana sax am na ko xam ne daa feebar ci kër ga mu feebar ci koñ bi mm-hmm. bool di ko di maanaam di gën a yokk feebaram ndax am na ñoo xam ne seen feebar buri buri la bañ mm-hmm. Sénégal nag mooy réew moo xam ne luñ dugg mopp waaye nag du noonu Mm. nañ xam ne daal yii nga xam ni moom laal lim muy fukk ak ñaar yi nga xam ne borom xam-xam yéen lim nañ ko mm. maanaam na ci nit ñi bàyyi xel lu dul loola ñu wattu ko te mm. danaa danaa ci dellu si waat danaa ko lim mooy woor bisan suura mm-hmm. julli ca mm-hmm. jokk ca bokk mm-hmm. sangu ca lelli cay we ngalu ca seeti ca ku feebar hmm? ziyaar ji ca borom xam-xam raay ca bopp jirim jàng ca lixlaas te junni ak euh, euh, maanaam jox berndel ci sa njaboot li mooy fukk ak ñaar yi nga xam ni maanaam euh, borom xam-xam yi wax nañ ni maanaam moom la ñuy màggalee Ashura jërëjëf euh, sëñ sànq li nga wax am na solo mm. ndax euh, buñ la fekkee fii ci daara ji nga mat nga te matale ko di sant yàlla bu baax ci xel mi mm. suñu borom yi bàyyi ak sam xel mm. ak sa kattan ba saa su ne rek ngay mën di gën a yaatal njàngale mag ñi ndaxte yàlla suñu borom mooy seet benn yónni ko benn mission mission bi mu la yónni nag da bokk ci ñu ndaw yi sëñ Tuubaa tànn ngir ñu war a continuer mission bi di ñaan daal ji gën gën a raw ci baax ñu gën a bàyyi xel na li mu wax mm. mooy tundiku lu bari ci tam xarit gi daaju boo ni xale yi sa wamalo sa sëñ Seex mais xale yi dañ ciy réer mm-hmm. Mm-hmm. xale yi dañ ciy réer waaw xale yi dañ ciy réer mm-hmm. lu ne mën naa xew ci mbedd mi xale bu jigéen daa yomba euh, yàqu lu ne mën na koo dal ci mbedd jigéen ñi nga xam ni euh, lan it dinaa ko nembi naa ko ci mooy jigéen ñi nga xam ni dañoo jàpp bisu tam xarit dañu togg reer daal di wëlbatiku daal di daal di ne nañ yàkkal seen njëkkee dafa naa ko waxee nañ yàkkal seen njëkkee daal di cay boole ay mbubb am na ci ñoo xam ne dañ cey def loolu ñuy wax ay taranga du taranga de man man comprendre naa dañuy koy tudde taranga waaye du taranga waaw mbir la moo xam ni kenn ku ca nekk maanaam dafay seet maanaam ger la li ñuy wax racho maanaam ger la kenn ku nekk da ngay jéem a ger sa mbokkum borom kër ngir maanaam mu lay waxal lu baax donte defoo ko mu waaw mu di la fenal mm-hmm. mu di la fenal mooy di wax ne yaa def nangam te defoo ko di la sosal mm-hmm. di wax ne yaa def nangam te defoo ko maanaam fu mu toll di wax sa borom kër sang baax te amaana sax defoo ko. nga nga xam déedéet xalaatuñ ko sax loolu sax ci laay profité xëy na loolu bokkul ci tam bi mhm. waaye fii ci léegi jigéen ñi ñaar lañ gën a sëyal ko borom kër. goroog njëkke ah, loolu moo am <laughs> léegi ni jigéen ñi sëyalatuñ sëyalatuñ borom kër. Ah. xam nga lu tax. Ah. mooy maanaam mën nañ bu seen borom kër waxee ñu tontu. mën nañ wax bu leen teree ñu bañ a dem. Mhm. waaye goroog njëkki moom dañoo fas yéene nañ seen cër dara du ci manqué te pourtant goroog njëkki a amuñ wàll ci sëy xam nga ah. xam naa dañ dañ na imaam ah, ah. na waaye goro amul cër ci sëy njëkki amul cër ci sëy maanaam boo demee fa ñuy jàngalee sëy doo fa fekk turu njëkki doo fekk turu goro loolu koy doy na sëkk mm-hmm. ñaari tur nga fay fekk mooy boroom kër soxna ñaari tur yooyu nga fay fekk ñaari way dencante yi loolu nga fay fekk léegi nag maanaam euh, ci aada yi lislaam ci aada yi Sénégal ci bëgg seen lu rafet moo tax ñu am cër boo xam ne taraanga ju ñu doon jox goro la am cër boo xam ne taraanga ju ñu doon jox njëkke la ngir wan leen ne leen yéen kat mbokki borom kër ngeen mm-hmm. waaye dem nañ ba léegi goro cër boobu nga xam ne dañ ko ko joxoon ngir maanaam taral la ko jàppatu ko taraange maanaam de maanaam kii ko la ko def waaw devoir la boo a def boo xam ne boo daa war a yàq sa sëy da ko war a yàq boo ko defu rek da la war a waxal bon njëkk itam maanaam liñ ko joxoon ci cër maanaam ne ko ngir maanaam mbokkum borom kër nga jàpp na lool loolu wërteef la woo xam ne léegi buñ ko defut itam daa war a yàq sa sëy soxna jaara bëri na sëy sëy yu tas yoo xam ne a alazim goro ak njëkkee mooy doom ak ndey maanaam kii mbokkum jëkkër kii di yaayu borom kër ñoo toog ki mu nas pexe yee tax maanaam sëy bi tas te te te wallaahi lan lan lan rek moo tax ñu tas ko ah. mooy soxna si nga xam ni mooy soxnas euh, borom kër gi maanaam am na taraanga juñ bëgg ci moom te defu ko wala matalu ko nañ ko bëggee ñu ne du sëykat. bu nekkee na la ba morom léegi jigéen jigéen ju doon sëykat kenn xamatu ko jigéen fi ñuy xame sëyam mën a mën a sëyam léegi mooy dafay nangoo tereel goroom nangoo tereel njëkkam borom këram nag mën na koo def maanaam maanaam fa morso fa berukaay loolu moom mën naa am dangay gis jigéen xam day def borom borom këram morso morso waaw moom morso fa berukaay lay def borom kër bi ba noppi nag wëlbatiku maanaam fonk goroom ak njëkkeem te ne mi ngi sëy goro beeg njëkk ji wëlbatiku maanaam euh, samp ko jàppal ko tànk ndax teraanga jim leen defal ba sëyam dëgër mm-hmm. nga gis koo xam ne dafay fonk borom këram comme ni ko ko yàlla digalee di jëfandikoo ay ndigalam di bàyyi ay tereem te day xat ci kër oh, mooy problème bi mooy kii kat jigéen la dafa sëy si kii kat jigéen la dafa sëy si waaye kii yaayam mu capacité kii yaayam man di ko jàppale ci sëy bi di wut ay teraanga yu mu indi kii yaayam maanaam néew doole la moom sax mën naa am dooleem bëriwut kii doo kii yaayam dooleem bëri mu mën a joxe ay ay jasne rek yooyu noonu comme yaa ma a xam li ma bëgg wax mm-hmm. maanaam kooka la ñuy jàppal tànk donte dafa dënk ki nga xam ne moom dafa jub maanaam du def lu lu dëng du ko wax ñu wëlbati ko indil koy problème ndax dafa néew doole moog yaayam. loolu ah, sëñ Cheikh jërëjëf. <laughs> jigéen ñi dégg ngeen li imaam wax ah, jërëjëf ci léegi nag ñu ñu ñu mënuñoo waxtaane jamono ji te waxtaane wun ku tedd ki yàlla nag fi yàlla yàggal lool ak rakkam ak seex yi ak waa kër maam rafali mu yi ah, muy sëriñ moom sëriñ Basiru ci bis bu rëy bi mu wootee àllarba bi addina àddina ummu islamique yëpp ci kontaan mais ñun ferte ci ñun murit yow ban jàngat nga ci ak ban yëg ngam ci bis boobu maanaam yëg-yëg boo xam ni bu rëy rëy sax boo xam ni bëriwul lu moo ko am ci mbir lan moo tax mooy mooy man man jàngalekat laa waaye baaxis la maanaam gëstukat la damay bàyyi xel ci lu bari te damay bay sama xel itam ci lu bari di ca di am lu ma cay roote di ko segg di ko setantal ginnaaw bu ma gëmee Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu yaakaar yi tey ak euh, te dëgëral ko comme ni ma ko ñaanee woon ci njëlbeen ci waaye di ñaanal itam Cheikh Abdoul Barak mi nga xam ne mooy borom barab bi moom Cheikh Ahmadoul suñu buntu ci kër Cheikh Ahmadoul Fadal ñu ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala dimbale ko ci liggéey bi nga xam ne moom la ko sëñ Muntaxa dénk mhm. li mu ko dénk itam nag mooy daara mhm. nag moom jox nañ ko cëram mhm. jox nañ ko cëram maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla dëgëral sëñ Maam Mor itam yal na yàlla yokk ay leeram ndax eh, la tax mooy taxaw na fa mu war a taxaw def na la war a def ñoo ngi koy ñaanal yàlla la desoon rek mooy comme na ko sëñ bi wa sëñ bi waxee sëñ Muntaxa liggéey sëñ Maam Mor liggéey wàcc na dafa dem añi waaw ñi foofu liggéey bi teg ko ci loxol Cheikh Mamadou Xaban sëñ sëñ mu sëñ mu Mamor yal na yàlla yokk ay leeram ca fa mu nekk yal na yàlla da yóbbu ko ca barsaxul Muhammadiya maanaam yóbbu ko ca wetu maanaam euh, maamam ji Sayxul Xadim ak bàyyam ba Cheikh Mamadou Fadal wala lancim waaye ñuy ñaan itam euh, rakam ji ko wuutu ci ci liggéey bi muy Cheikh Mamadou Xaban itam yal na yàlla dimbale ko mm. dëgëral ko taxawal ko mm. maanaam ba mu yobbu liggéey bi fuñ ko fuñ ko foogewut euh, te am nañ ci yaakaar bu wér ndax ma nanzax min naayatin aw nunsiha naati bi gayrin minha aw misliha moo tax am nañ ci yaakaar yàlla bu bu jëlee bu ñu jëlee ci ñun la nga xam ni eh, lu baax la rek daf ñuy jox maanaam lu lool loola mbaa lu ni mel loolu la wax ci alquran eh, eh, yëg-yëg bi ma am ci laaj bi muy muy maanaam njàngum xasida mi sëñ bi santoon ak njàngum alquran mi ñu jiital ci alquran toftal ci xasida yi dafa am solo maanaam enseignement bu réeréeré lañ ci war a jëlee. soo na jaar ki. maanaam jàpp ci yàlla te bañ koo booleeg leneen loolu war nañ ko jaajale mm-hmm. mooy nit ki li mu war a def mooy jëfandikoo ndigalal boroomam lay xew ëllëg bu ci yoonam ne mm-hmm. loolu lañ ci jànge maanaam aqida bu wér mooy jëfandikoo lala la yàlla digal léegi nag la yàlla di teg ci sa kaw nag loola moom yàlla la mm-hmm. waaye yow li nga xam ni moo taxoon yàlla indi la fi muy jëfandikoo ndigalam nga ne ca loola war nañ caa tiire loola war nañ caa tiire itam ne ndi nit ndekki wër ta ragal feebar ndeketi nit yàlla la war a ragal war nañ caa tiiree ndax yàlla moo moom nit moom feebar mhm. soo waxee feebar na ko dalal ci kaw nit mu dal ci kaw nit waaye su yàlla téyee feebar na ko mu kaw nit du dal ci kaw nit mhm. bis bii amul kenn ku dul suñ Muntaxa ko ko ñemee woote amut xam nga lu tax mooy da ngay bu fekkee maam nitu kese nga doo sëñ Tuubaa boo doonul sëñ Tuubaa sax ñeme woo xam nga lu tax mhm. loolu ci la li ma bëgg a wax mooy suñ mun Muntaxa dafa doon sëñ Tuubaa ndax maanaam Euh, boo ko bëggee organiser lu toll nii bëgg a woote woote bi yàlla bu toll nii la ngay njëkk a xalaat mooy conséquences yi ma ci mën a fekk après. loolu ngay njëkk a xalaat suñu tax xalaatul loolu. Mm. maanaam doyloo woon na yàlla gëm sëñ Touba bàyyee ko boppam xam ni ndam rek la ko ci yàlla defal. Mm-hmm. musoo bu ci joxe ndigal waaye kenn du murid yi. ah kenn du ñun taxaw nañ taxawaay boo xamante ni ki nii maanaam euh, euh, mosuñ koo taxaw ci mbir wala gëj nañ koo taxaw ci mbir mm-hmm. maanaam ñu ni corona dafa am. kum daal mën nga am problème mbaa da nga faatu nit ñi daw rek affronté corona mm. affronté corona loolu wax la loolu beneen affaire la <laughs> murid yi gis nga gis nga gis nga gis nga sëñ Tuubaa mooy jàmm bi liggéeyal yàlla lu kenn defalut comme ni ko Cheikh eh. Mamadou Mountakha waxee lam wax ni loo xam ne wax naa ko ba noppi mm-hmm. mooy sëñ Tuubaa maanaam kenn moom eh. te itam maanaam fa mu àgg boroomam fa mm-hmm. loola am na waaye sëñ Tuubaa itam mooy jëmm ji nga xam ni fi ab taalibe bi àgg ci moom benn kenn la fa sab taalibe bi mën lan lan moo tax mooy nu nu nu nu nu sëriñ bi gëmee yàlla gëmee ko yenent bi toppee ko ndigalal boroomam murid yi jàppe nañ noonu sëñ Tuubaa gëmee nañ ko noonu. Mm-hmm. ba lépp loo xamante ni maanaam euh, ndigal la rek ñu jëfandikoo ko. Mm-hmm. soxna Jaara mën nañu caa jàngee ba tey nii tam ni maanaam ab murid moom lan rek la war a def mooy jëfe ndigal. jëfe ndigal rek la war a def. Mm-hmm. moo tax gis nga bi mu jàllee aucun problème. léegi tey itam maanaam ñun ñëpp maase nañ d'accord ci ne biig ndox wàcc na ci dëkk bi ndox moo xam ne maanaam bu machine bi gëj na am xam nga lu tax mooy mooy mooy mooy maanaam euh, euh, euh, dafa fekk sax suuf si mar moo tax ñu bëri xamuñ capacité taw bi man mi nga xam ne yàlla dogal na bi muy taw maanaam fekk na booba fatooguma maanaam nga xam ne bi muy taw bi muy sébét lépp maa ngi ciy bàyyi xel maanaam ndox wàcc na moo xam ne amul buru yi defe naa sax bu dee dënnu génn dënnu ci am su ma jëmut maanaam àndut ak ngelaw diir maanaam di maanaam temps de minute bi mu taw tam te mu doon ndoxum kese moo xam ne dafay wàcc te arrêté wut ci ci ci ci nombre de temps bi mu ko def loolu gëj na am loolu nag dañuy jàpp ni bu bun buñ tàllalee yàlla loxo yàlla répondre dañuy jàpp ni suñu ñaan nangoon Cheikh Amadou Mountakha ñi ngi koy ñaanal sëñ bi ñi ngi lay wax ne yàlla nang na ñaan gi te itam maanaam eh, kenn ku ci nekk ci ñi nga xam ni ñoo taxawoon ci ndigal li ba nga noppee yënga ci sa bopp fajug aajo goo xam ni maanaam lu doon toon bi mun la koo jox billahi wallahi tallahi ñetti ngi ñuy ñëwal ci wax man man laa wax man man yëg naa ci man tawfiix joo xam ni man xam naa ne bu bis bi jaarutoon du ma ko am bis ma ci gën a mm-hmm. moo ay tut tànk boo xoolee ci baas baas boo dem mm-hmm. boo xoolee yi am ñaar fukk ak juróom-ñett ba ñeent fukkaat mm-hmm. xale yooyu ñoo ñoo ñoo fees dell nag ak Cheikhul Khadim ba pare bàyyi seen lépp fu ne la nit jóge ci àdduna korog moom dama ne kii tooñ naan tey eh, baala di daal tey génn na nga xam ne sëriñ sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa ndaw ñi xam nga xam nga xam nga xam nga sëñ sëñ sëñ Muntaxa yàlla yàlla dëgëral ndaw ñi dañ ko bëgg xamoo secret bi de xamoo secret bi tax ndaw ñi bëgg danaa la ko wax li tax naw ñu bëgg ñu jëgg ko mooy ba ci njëkk mooy Sëriñ Muntaxa daa bëgg Sëriñ Tuubaa bokk na ca Sëriñ Muntaxa daa bëgg Sëriñ Tuubaa nga xam ni maanaam moom xar kanamam ngay xool rek xam ni kii daa bëgg Sëriñ Tuubaa mm-hmm. ah, ba ca topp mooy Sëriñ Muntaxa daa wóolu day wax rek nga xam ni ku wóolu Sëriñ Tuubaa ngi nii mm-hmm. ba ca topp mooy Sëriñ Muntaxa ab taalibe dong la bëgg a doon bëggtu doon leneen mm-hmm. kon murid yi dañoo yëg ni seen bokkum taalibe moo doon mooy seen jawrin loolu la ñu yëg seen bokkum taalibe mooy seen jawrin taalibe bi la bëgg doon moom Cheikh Abdoul Muntaxa xool ko mboolem waa kër sëñ Tuubaa ñi fi jaar kenn ku ci nekk am na ngërëmam te la tax mu am ko moom jëfam la. xoole ci Cheikh ma Lamine Baara ak Cheikh Sidil Mokhtar mi fi mujj. Cheikh Mamadou Lamine Baara bis bi nga xam ni suñ Muntaxa àggale na wala noppi na ci jumaay Daarul Minan boole caabi ya ak somba ak laxasaay ga jiital waa Daarul Minan ak murid yi ñu dikk ni groupe ci Cheikh ma Kamoun Cheikh Mamadou Lamine Baara kenn ku ne defee woon ni loolu mënta am. dëgg wax ji waaye mu daan ne Cheikh Mamadou Lamine Baara yaay sëñ Tuubaa te nun gëm nañ ne yaay suñ Tuubaa kon yow yaanu moom noo ngi nii sunu alal la ngi nii sunu liggéey ngi nii noo ngi nii da def ko ci def ko ci def ko ci euh, euh, euh, Cheikh Mouhamadou Cheikh Sidul Mokhtar moo tax bi mu ñëwee maanaam amul kenn ko xam ni maanaam ni nga nii ñëpp nii lañ def topp ci ginnaawam loolu moo ko ko may li tax ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi bëgg Cheikh Mouhamadou Mountakha ba muñ ci moom sago mooy mooy ndaw foo fu mu toll kuñ yilif lay doon te waaw maanaam ndaw fu mu toll kuñ yilif la war a doon mhm. te moom gis na ba mu tollee ci ñu di ko yilif dafa nangoon kilifteef gi mhm. loolu moo tax mboolem mboolem ndaw te ñëpp ko nangul amul mhm. a nangul si Mamadul Muntaxa yal na yàlla dëgëral ko te waxtaan wi neex na waaye fii la ñuy jotaay beneen yoon ci beneen jotaay ndax màggalu Daaru Xudoos mi ngi ñëw am na ay solo yuñ ci war a liggéey incha allah ñu bàyyi nga tàggatoo ci jotaay ban dajawaat ci beneen jotaay segam soob na yàlla euh, wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadul Qadim radiallahu taala anhu noo ngi sant bu baax di sant ci jataay bi ndax itam nun noo ngi fii rek comme niñ ko mag ñi di waxee banque ci suñu xotti gerte eh, léegi yéen bu ngeen doxee ba dikk fekk ñu fii ñu nekk eh, di taataan suñu kaddu loolu ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm te ñaan borom bi subhanahu wa taala eh, barab bi muy muy waa waar wi TV waar wi TV yàlla suñu borom subhanahu wa taala yokk yëkkati ko ba ba bañ dégg ko fu ne ci àdduna bi yàlla yàlla def ko fi fii nu toog nag man na ko fi nu toog nii fii fii fii fii fii mën na ko ñi ñi am na ñooñ bu ñu ma seetaanee uh-huh. danañ laa wax na suñu seex na dëgg fi fi ñu toog mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke barab bi ak borom barab bi waaw yàlla defal ñu tawfeex tey itam yàlla dimbali ñu ci ñu doon ay taalibe Sëriñ Tuubaa yu ko gëm te nangul ko ci barke Yonent bi defal ñu ko te defal leen ko Cheikh Abdoul Mountakha yàlla ko fi te wéral ko Cheikh Abdoul Baraka yàlla yàggal ko fi te wéral ko ko fi te wéral ko te dimbale ko ci mission bi ko sëriñ bi dénk waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëñ Seex ñi ngi sant bu baax di gërëm di jaajëfal ñi doon seetaan yëpp di sant di gërëm ah, wax dëgg yàlla danoo yàgg ndax dana yàgg dëgg la te yàgg nañ ba léegi benn sëñ Seex men xamoon lan xamoon ñi ngi sant di sant it ah, bu baax a baax sunu sëriñ suñu wasila sëriñ Seex Mbàkke sooy bu ndax njàngam xas dami dañ koo dénk suñu wasila ah, sëriñ am sotu Mbàkke moom sëriñ sooy bu mu taxaw ci taxawaay mër sëkk ànd ko ki bokkam ak taalibe yëpp di ñaanal bu baax it moom yan bi da gën a ci moom balay sa di ñaanal ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat ci yeneen jotaay li la indi woon ci jotaayu Tamxarit ngeen ñuy xaar ñu ci yeneen jotaay ñu ci war a indil ci barke Cheikhul Khadim di leen ñaanal baax di leen jaajëfal di leen joxaat rendez-vous ci fan yi néew incha allah ci barke Serigne Touba.